ودود كلي أبدا بالود وتامني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود وتامني أثر الوقت asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa dëppoo benn pan ci weeru avril ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñett bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci ajuma ja rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wu nekk nag deesu ca yeggalee ab say deesu ca tukki ñaanuk bis bi yow yàlla miy wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati suñuy xol jëmee ko ci sag topp la allahuma sarrif al qulubi sarrif qulubana ala taatik xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di wattandiku loon njort ndax njortu mooy gën jaaman a feni waxtaan bu leen yëddoonte bu leen raju bu leen bañante bu leen wanante ginnaaw doon leeni jaami yàlla tey ay bokk xaddis bi buxaar yi moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam iyaakum wa dann fa inna dann aktabul xadis wala taxassasu wala tajassasu wala tabaaxadu wala tadaabaru wa kunu ibaadallahi ixwaana rawaahu buxaar yi liman ma